nga xam ne yéen baaxoo ànd ak ñun tey ñu ngi ñëwaat fii ci seen beneen numéro tey nag eh, ñu fekk si jàmbaar di jigéen joo xam ne nii jigéen di ñu koy waxee jigéen fàkk tëdd jigéen joo xam ne nii ku jàmbaar la ci terrain bi xam naa ne dañ koy bàyyi mu présenté bu mu ki ñëw nag muy soxna Mariama Touré soxna Mariama ginnaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi lay ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Thierno ma doorati rek di nuyoo di nuyoo comme ni ma daan nuyoo. nuyoo murit di njëkk ci sama nuyoo alxalifatul am sëñ Muntaxal Bachir di nuyu mboolem ku nekk ci département Mbàkke yaakaar naa ni nga dékk ma sa micro duma ci gan ndax man maak 24 actu moom dañoo yàgg mën naa ne ba ma dooree ba tey ndax xam nga rek ci xam gi ma xam ci sàmm kóllëre tax na lépp lu may tàmbali rek wala ma koy door dama koy dooree ak yéen bëri na journaliste yoo xam ne boobu ba tey ñi may ñi ngi may laaj waaye su ma waree tàmbale di wax bisimilaay dama koy tàmbalee ci vingt 24 actu ndax yaakaar naa jiga diw leen ma ma di leen nuyu di leen ziyaare di nuyu mbay mii nga xam ne moom su ma soo soo disponible rek moom sawar na nga yebal ko ci man macha allah di nuyu mbooleem rek ku nekk ci département bi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy képp kuy yëngu ci kilifa diine wala ngay kilifa aada maa ngi lay fekk fi nga nekk di la nuyu di la ziyaare di la baalu àq di wax bisimilaay ci ñu door nag ci liñ jëm jërëjëf soxna Mariama ci nuyoo bu matala bi macha allah mais dafa mel ne jamono ji li di wax ndax fan yee gisoon nañ la nga génn def sa lancement def déclaration sensé woon nga parti waaye dafa mel nag loolu dañu ci ñëwlaat ndax mooy dafa mel daal changement daal am na. waa macha allah euh, Thierno man duma koy changer parti man damay nationalité te benn nationalité rek laay am man lu may dugg damay ñaan yàlla ñëpp xam li ma dëgmal lu mu doon parti bi ma nekkoon ci laa doore sama carrière liggéey naa ci liggéey bu rafet bu ànd ak euh, macha allah sant yàlla ba ki ma àndaloon doon liggéey ak moom doore ci moom wax dëgg yàlla ak ay activité sele ay activité am toog jàpp njàmburam génnul waxul wane ne daal participer wul ci élection yi ñu jëm ci laa nag wax dëgg yàlla joxul kenn consigne de dara de vote ma choisir nag man tamit ne dama bokk ci réew mi bokk ci ñi nga xam ne dañ fee am ak njaboot bëgg changement bëgg tamit lii ñuy dund at yi ma dugal sama loxo ci li ko fiy jëlee ba bu ëllëgee ma mën a taxaw ne man bokk naa ci ñi daan jàmbaar comme niñ may woowee laa liyoon ñu may bàkke xam naa ne sax dañoo baax rek di ma ko bàkke waaye man devoiru jigéen rek laay def ndax jigéen toujours lépp lu ñuy def daf ci war da jiital boppam ba loolu moo ma may tey ñu créer fi mouvement la la femme leader def ma may présidente bi ñu ëlbatikooti tamit samay réseau yépp li ma ko tuddee mooy jom ak fulla ak ngor nekk naa ci parti liggéey fa liggéey bu rafet ba yaakaar naa ne tey suñ doon takkal médaille dinaa bokk ci jigéen ñañ fay takkal médaille ku tudd parti boobu tudd ma yaakaar naa lañ cay teg mooy akay jàmbaar kon man wàcc naa foofu ba keroog may déggaat kilifa googu wax lu ma mën a dégg tey nag ma def sama choix sama kilifa gu baax di sama xarit di ko wax sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Modou faati xari ñu bokk ndey muy sama lépp di sama xarit am xaritam boo xam ne moo ko découvriral boppam toog dugalut loxoom benn yoon ci activité politique waaye nag Sénégal da koo ñor rawatina nag dëkkub sëriñ Touba bi muy sëñ bu Moustapha ma di ko ñaanal gudd fan ak wér ndax mat ma kilifa moo tax mu mën maa jox ndigal ma di ko jëfe loolu moo ma indi ci parti bi ma nekk tey wax dëgg bi ma ko wanee tamit nag ku ma xam ku ne xam ne lu ma waaye jox teg te neexu ma ma ne la teggil loolu ku ma xam-xam nga ko ci man nit ku am fula laa moom suñ ma ko waxaleet maa ko gën a xamal sama bopp ndax duma dox ci dara lu ñàkk fayda dafa fii yaakaar naa ni département Mbacké bi ñëw teel naa fee ñëw lool waaye nag lépp li ma fi teel a ñëw lépp li ma gunge muy fulla ak fayda ni ko nit ñiy waxee toujours ma xamal ko sama bopp gaynde googu ñu may tuddee it nag léeg-léeg ma toog ba yàgg ma ne man su ma jógee ci xal du ma tëb tànk xal bi fayul fayul ci sama kaw tànk du ma teggi sama tànk man su ma duggee ci dara damay dem ba jeex. yow ki nga yow candidat ki nga suwaa temps yi jamono jii moom muy Thierno Alassane Sall coow li bëri na ci moom temps yi dafa mel ne gars yi ñu ngi koy wax rek coow li bëri na lan nga ñu mën a. yàggoo dégg ñu naan man dama laal bayre bukk kër gi sama kër gi nga ma fekk gisoo kër gi turandoo yi ma fi tudde ñoo fi gën a bëri coow. koñ buñ ma tuddee turondoo rek macha allah dangay ngay dégg coow li da koy topp man lu ma laal moo gën lu ma laalul macha allah ndax sama baay daf maa gërëm ñaanal ma yëkkati ma jox ma jarbaata ma liggéey fi nag macha allah te dara ñaawul mu sant ma gërëm ma ñaanal ma man képp ku taw waaw waaw dama lay wax li ko waral xam nga dama ko rejoindre temps yi nga dégg ñu koy coowee fu ne dañ koy coow te daf ciy génn yàlla nag dimbali ma wax dëgg yàlla bëgguma di coow ci loo loo xam ne nit dañ lay dégg ci coow loo xam ne du coow lu am personnalité wala coow loo xam ne dañ la ciy xeeb Thierno Alassane sàll ci dëkk bi la dëkk fi la jànge di mbokkum ñëpp kenn du ko laaj ñaari nationalité mu def fi nag loo xam ne tey su defee lii du bett kenn du jaaxal kenn ndax ki nga xam ne dangaa mal say intérêt toog ñu di la signaloo nga teg big ba joxe sa lettre de dimission ne man kenn du ma def loo xam ne ci senegal àndut ak ak ak ak ak ak sama sama sama bëgg Sénégal kon yaakaar naa jëf jii mu jëf tey képp ku taxaw di am loo ciy wax yow dangaa xamul kan mooy Thierno Alassane Sall yaakaar naa kii ñu accusé jëf ji moom sorteem bu njëkk daf ne maa ngi sant président Thierno Alassane Sall mi ma fàttali kon moom dafa fàtte woon ne am ñaari national yi nationalité la yor maa ngi sant président Thierno Alassane Sall mi ma fàttali ne am naa ñaari nationalité daal di jugaat ci nelaw dem ñuy teg seeni eh, deal pour négocier ko Thierno Alassane Sall gis nga Karim wàdd taxu ko jóg liñ naan lugga tàbbi na ca teen ba waaye ndox ma taxu ko jug baag ba lay jëli. Thierno gars yi dañu ko wax loo gars yi ñoo ko yónni rek ku ñu yónni pion bu ñu yónni rek. kan kan kan moo sañ taxaw di wax loolu xam nga li tax mooy suñu yenn ci influenceurs yi ñenn ci journalistes yi ñuy tuddee ay influenceurs laa leen wax ndax damay jàkkaarloog ñoo xamante ni bi di li ñuy wax jéem a influencer nit ñi mooy waral ñu di ko wax ci Thierno Alassane Sall waaye Thierno Alassane Sall ku tëdd sa lal di nelaw sax xam nga kan mooy Thierno Alassane Sall président Ablaye Wade bàyyi Karim Wade muy président Macky Sall damaa jëlale Amadou Ba mi nga xam ne ñi ngi naan xamuñu ko ci dëkk bii wax dëgg yàlla ñi ngi may laaj ku koy tagg foo koy bàkk ak fan mooy dëkku maamam ci dëkk bi loolu sama yoon nekku ci duma ci sori Cerno Alassane Sall kees gee fa la juddoo fa la yaroo fa la jànge bàyyi ma nekkoon imaamu jàkka ja nekk chef de quartier ca koñ ba ñu xam ko ku koy tagg xam fa koy tagg ak fa ngay daane la way wi kon Cerno kenn jàkkaarlook président Macky Sall ne ko man duma jaay sama réew joxe lettre de démission mu leer ñëpp kon tey suñu toogee ba mu defaat acte bii ñii di waya wayaaka influencer nit ñi ñooy wax waaye ñoom ñay ndeyu mbilie duñu wax tey nag moom karimwaat di neex naa setal te neex naa layal ndax fi mu toll nii dañoo bëgg a daaneel candidat yëkkati candidat làkk doom duma doom moo tax mu xam ne am na fu mu jafandu ndax moom xam na ne du prosu état état ki ko tee nelaw xam nañ ko looloo tax ñu bëgg a dem langaamu ànd ak ñoom fàtte ka leen jaf kañ jafandu woon ba mën a taxaw bañ boolewaat leen ci société bi ba ñu mën a am ensemble ay député ñu gasal ko ndëgg sërëx kompaloo ko gas ko ba mu xóot ñu suul ko waaye yàlla gëmul nelawul élection yii ñu jëm yàlla seede na ni balaa 10 heures gi leer xaw ma nag fu mu leer jëm yàlla nay ci Thierno Alassane Sall. carte gi leer comprendre mu li nga wax xam ku ne xam na ne élection yi dina nga xam nga dañ doon wax. seen bopp ngeen yéen kay seen bopp ngeen war a dëggal leen seen bopp pour ne yéen koy. ma la wax déggoo li ma la wax balaa ak fu mu mën a jëm laa wax yàlla nay sama leader président Thierno Alassane Sall bi ma choisir ci 2024 bi ne moom laay gunge ci élection yi ànd ak moom yàlla nay moom waaye candidat bi fi président sortant bi teg man leer na ma ne mënut génn premier deuxième tour bay génn premier tour. dafa leer xale bi gën a gën a ndaw soo ko laajee mu wan la résultat yi moom mi nga xam ne moom la candidat sortant bi désigné soo ko laajee moom xam na ni moom boo ko gisee ni muy demee sax nga xam ne kii xam na ni moom munta sax bokk ci cinq premières yi génn deuxième kon yéen amu leen yaakaar ne yéen da ngeen war ngeen mën a war ngeen a yow ku bu bu bu fekkee ne candidat bi ñu fi teg génnul kan mooy dem deuxième tour ah, Bassirou Diomaye mi a waaw Bassirou Diomaye Faye kañ la war a demal deuxième tour fi ñu toll ni nga yaakaar ku dul président Thierno Alassane Bassirou ngeen tëkkaleeg Thierno Alassane. Bassirou Bassirou Diomaye ci so Ousmane Sonko parti parti Pastef bu mag bi ci réew mi. yaa ngi may doog wax lu ma neex ndax man ay principe laa defe ne woon moom la Sénégalais yi gëm ay Sénégalais yi liñ gëm man xaw ma ko. yaa ngi may dégg xëy na nag dañ leen a dóor ñuy fayu te fayu bi dal na ndax yaakaar naa ne tey kenn xàmmewul ñu nga tudd ak ñiñ fi doon xeex ba tëj leen fee ñu leen tëj yàlla na leen fa yàlla génne. su deuxième tour dee am moom moomu nga tudd mook sama leader ñoo war a dem deuxième tour bu fekkee ne réew mi tege na ci yoon ak liñ ne moom la ñuy xeex moom la ñuy xeex lii fi nekkoon moom dañ koy bale ba mu set dàq ko ñoom gaña nañ leen te élection amagul kenn waxatul seen wax soo amay wax dangay ngay da ngay wax entre kooku nga ma tudd ak sama leader bii di président Thierno Alassane Sall. Sénégal xam nga Thierno Alassane Sall buñ ba bàyyi ñu dem Thierno Alassane Sall nag mooy Mariama yow yaa ko xam mais fii département Mbacké bi nga nekk nii nii nii yow nan ngeen fi liggéeyee man Thierno Alassane à part yow man déggaatuma fi keneen. fi keneen waaye dégg nga ma. Ah, yow dégg ne. xam nga ne nag ginaar du toppi kuy taxani te gis ku jëm ca wala doo man ku may topp ku ne ku ñu xam lañ doon lay doon ci dëkk bi xam nga ne man du ma topp n'importe qui ndax leer na la ne ci ci opposition laa jóge duggaat ci opposition bi kon xam nga ne man ay principe ak i valeur moom laay cherché te dama koo gis ci président Thierno Alassane Sall sénégalais yi bu ñu jàkkaarloog président Thierno Alassane Sall di am lenn lu ñu contesté ci moom Sénégal ñoru leen ak kuñ fi mën a teg ndax man xam nga ne du ma jaahil du ma jaaxil dañ naak réer doomi dëkk bi laa fi ñëpp jànge laa jànge defal ndànk fii réew mi ñëpp doomi réew mi lañ ñëpp doomi dëkk bi lañ li ma bëgg a wax mooy tey nan lañ ne dañuy xeex ay valeur ak dañoo bëgg changement nit jug ñu fekk koo xam ne deful dara ñu teg ko fañ ko teg wut luñ ko diw ba mu takk rip ñu teg ko ci ruq mu toog ñun ñu ñu ñu ne ko yow doo bokk dem fekk koo xam ne accusation yiñ ko tegaloon yëpp indi la guñ ñu benn preuve wala lenn luy wane ne loolu dindi nañ ko suñu 130 milliards yi dañ koo tax France dallu xa dem ñu bàyyi noonu mu sedd président Thierno Alassane Sall mi ba mu dooree ba tey di xeex benn objectif la am mooy tappale ak diil ak i wor na fi jóge mu xool ba xam ne kee li ñu ko def tegewut ci yoon ñu bëgg a kumba am ndey ak kumba amul ndey tax mu dem ne leen lii ngeen ne conseil constitutionnel moo ne moom munta jàll am na ku ko gën a pire li mu def ndax bàyyi ma fi rëddoon lii tey côté bokk ci élection yi kan la war a yaakaar a dem làqatu ji lu dul parti au pouvoir bii la bëgg a wéer ak ndoddam ak député yi nga xam ne ka leen tax a am seen député yi ma nga ñu teg ca ruq ñoo ko lalal ndëgg sërëx compaloté ko ñoom ci seen biir tey ñu nar a ànd ak parti au pouvoir nar a ndëgg la lalalaat raxasaat ko ba set ndax mu falu quel pays ban réew lañ nekk ci jëkko yu ñaaw ci jëf yu bon ci worante ndax bëgg a falu loolu Thierno Alassane Sall nekku ci gis nga sénégalais ñooy tànn ku leen neex ndax ku xam Thierno xam na doomi daara la xam na li yàlla wax ci ak fal yàlla nee na nguur su ma koy jox nit dama koy dama koy bif ca ka ko yore nos ko ki ko yor bu ko neexoon sax mu tànn moom suñu borom kon nguur da ngay sabablu rek waaye yàlla moo koy jox waaye sénégalais yi mënuñu koo xuqutal wala ñu tiital ko ba lii mu wax mu weddi ci lu toll ne tarfitan ay ni wala mu dellu ci ginnaaw du genre boobu sax ku xam Thierno man Thierno yàgg naa koo xam. Euh, Mariama xam nga Thierno Alassane Sall est-ce que am na compétence boo xam ne réew réew du ab quartier de réew bàyyi leen ñuy jaaxaane réew mi réew mi du quartier ba ku jug ñu ne nañ ko ko jox. li nga très bon question li nga ma laaj neex na ma li tax mu neex ma mooy l'homme qu'il à la place qu'il dafa war a ñëw ci Sénégal lu nasaxal réew mi ñàkk lu mel noonu moo ko waral. ñàkk a teg nit ci place am Thierno bi mu jógee ba tey président bu fi toog te xam ko loo ko jox danga koy xeet lu mu amul tey tey bu toogoon APR gee def na ña fa nekkoon tey yaakaar naa moom la ñuy tànn dégg naa ko ci kilifay yi yu bëri ñu toog ak ay kilifa ne ko bañ riposte bi muy def ak bañ gi muy bañ tey moo tax tey ndax yaakaar naa ne ku dem ba ñu fal la nga jiite cadre APR yëpp xeex ba seen seen seen bokk bennoo bokk bàkkaar bi falu fi loxoom jugu ci kenn jiituwu ko ci te kenn ëppalewu ko ci te gis nga président sortant bi ak lépp luñ ko mën a wax ku bëgg nitu valeur la dafa bëggoon président Thierno Alassane Sall lépp lum ko laajoon dina ko ko jox mais moom mu ne lépp loo xam ne damaa waat ne lépp loo xam ne dippi mu nekkee ASECNA dama waat ne lépp luy nasaxal sama koom-koomu réew wala lépp loo xam ne day jël sama alalu réew di ko jaayi bitim réew man Thierno Alassane Sall duma ko cautionné kon yaakaar naa ne sénégalais yi bu ñu amee bu ñu amee dégg am gis xool parcours Thierno Alassane Sall du ñu am lu ñuy laam-laamee ci war nañ koo votel ak waruñu koo votel li ci des nag ñoom ñooy seet lu leen neex waaye journaliste yenn ci journaliste yi nga xam ne dañoo mel ne man ñoom laa tuddee influenceur dañuy toog ci ay plateau bëgg a influencer nit ñi ci benn côté rek fii ñëpp ñaari bët lañ am kenn ku ne fu la neex ngay xool nañ bàyyi nit ñi ñu def seen choix def lu leen neex l'essentiel daal li may ñaan mooy li fi nekk moom yàlla na ko fi yàlla jëlee te bàyyi ñu fi ñu fekk ko dafa mel ne jamono ji sensé nga ndax maanaam bu bees bi dafa am nga ci kii <laughs> parti bu bees bi de yàlla dogal na man ku ne xam na borom parti bi li mu incarné ak li mu gëm yàlla xam na ni man bi ma ko rejoindre rek léegi sax yaakaar naa toogaguñu amaguñu temps pour toogee essence essence ki ma ko présenté doy na ma sama kilifa la mi ngi ma ciy gunge waaw mais nag changé parti oto waaw te damay wàcc campagne ci kàttanu yàlla Oh, duma ci campagne waaw incha allah jàppale président Thierno Alassane Sall président Thierno du gan ci département bi de ay kilifa ñoo ko fi dugal ay doomi dëkk bi ay bërëm ñoo xam ne dañoo am cër ci dëkk bi ñoo ko dugal ci dëkk bi bëgg koo jàppale ndax wan xale yi ay valeur wan nit ñi ne du rek da ngay am làmmiñ bu ñaaw wala da ngay am xaalis boo xam ne kenn xamul naka nu mu fa demee rek war a mën a laaj réew mi man damay ñaan yàlla président bi ñëw yàlla na doon président Thierno Alassane Sall ndax ay valeur dellu si waat dama bëgg nit ñi dugal seen bopp ci bu baax ci président Thierno Alassane Sall Karim Wade taxu koo jóg dëgg lay defendre nañ ko ko nangul ku mën a teg sa signature ku mën a teg sa sa sa joxe sa lettre ministre ak ni mu neexee nga démissionné nga démissionné te dégg naa kilifa gii nee na keroog bam koy bam koy ba mu ba muy démissionné situation yi mu kenn mënu la koo wax. mu démissionné ndax bañ ay ay wor ak ay tappale ci réew mi kon tey su demee def lii war nañ ko ko war nañ ko ko nangul Karim Wade taxul te jug président Thierno Alassane Sall président Thierno Alassane Sall day wane dëgg wane ne leen kii ngeen bàyyi fee ne war ta bokk am ngeen doom ju ngeen dëxëñal 138 milliards yu ngeen ñu waxoon ne ñu daf ñu koo yoreel ba tey wanagu leen ñu ne yoreeluñ ñu ko wala ñu wan ñu chèque buy wane ne fay nañu ngeen bëgg koo jël tey raxas ko ndax di ko xeexee lii ñu bëgg a jàllale Karim Wade Karim Wade moo ne moom sant na président Thierno Alassane sàll mi ko wax ne ko ñaari nationalité nga am président Thierno Alassane Sall indiwu fi loi boobu ñu ñu ñu delluwaat ginnaaw coow li ñu bañ koo personnalisé ci président Karim Wade wala kenn Thierno Alassane non non non léegi ginnaaw bi ngeen jàllee ci seen parrainage yi parrainage yi nan ngeen dundee woon fakastalo xam naa ngeen def da ngeen fakastalo ah ba jàll. waaw waaw waaw miin nañ ko nag xam nga kuy décroché ba ñëw wër ma ba xam ma ñu boole ma ak yow. ma ñëw rejoindre la xam naa yow mii ko am ambition nga ko am fu mu jëm la moom président Thierno Alassane Sall yàlla seede na ne gëm naa ne mooy ki nga xam ne tey suñu doon peese balance su jëfu parenage kenn du ko ci gën la setle parrainage mooy nit ku dëgg koo xam ne moom bu jàkkaarloog yow li ci moom la lay wax du ger du jënd parenage am na ku ma woo euh, ne ma damaa yor clé boo xam ne def na 10 mille parenage waaw bu ngeen ko soxlaa wax ma wax ma ma daal di koy woo mu ne ma non non man parrainage yi ma soxla na ko nit ñi dem ci nit ñi dajale ko ba mat ñu indil ma ko ma jël ko yàlla xam na ni président Thierno Alassane Sall jëlul benn benn benn parrainage boo xam ne favorableul man loolu leer na ma. fii département Mbacké est-ce que nga yaakaar na ren ren dina seer dina compliqué de Birima Mangara et cetera et cetera yow noonu nan nga nar a jàkkaarloo ñoom fii ci département Mbacké bi waaw man de liggéey naa fi liggéey bu rafet ba marke sama empreinte am na ñu ma jox bopp bëri na ay kilifa yoo xam ne tey ñi may woo bëgg jàppale président Thierno Alassane Sall di ko ñaanal ci zaahir di ko ñaanal ci baatin ma nit nag bi ma dooree sama carrière ba tey yaakaar naa ne tooguma am naa fi ab xame am naa fi ay mbokk maa ngi ci réseau des femmes nee naa la fii laa toog jigéen ñi créer seen mouvement les femmes leaders di département Mbacké def ma may présidente bi sama GIE bi tamit gis nga ko muy GIE jom fulla ngor bi ma koy créer yaakaar naa ñoo ñëpp kenn ku ne yaakaar naa léeg-léeg ma capturer sama sama sama groupe yi envoyé la ko ngir bëgg rek lu leer yaa ngi ciy teg sa bët xam nga ne man tooguma maa ngi liggéey li ci des nag sénégalais yi ñooy def seen choix suñu demee ba élection jot li benn leaderu politique waxoon ne nit ñi ay ginaar lañ boo bàyyee ba élection jot boo leen suyee pepp rek ñu topp la am naa ay nitu valeur yu mel ne président Thierno Alassane Sall ñoo xam ne loolu fëkku leen yaakaar nga ne daal département Mbacké reen moom di di moom dina yomb ci yow. rafet naa ci njort man fu ma jaar yoon la yaakaar naa ndax damaa set wecc ci weex taal waaw. ngay lancé jigéen ñi nekk département Mbacké ak ñi nga xam ne ñoom ko saña wax ci wàllu élection yi nga xam ne ci leen jublu. waa li ma leen di wax mooy damay faral di ko waxtaanee ak jigéen ñi suñu demee su ma demee ci ci ci mouvement des femmes yi ñu naan ma dañ ñoo yàgg a nax dañ ñoo yàgg a wax lii man leen kenn naxu leen yéenay nax seen bopp nit ki bu fekkee ne dafa jug di wuti ñëw fexe ba amus tuutam ñëw jox la ko nga jàppale ko fekk ki nga xam ne moog yow a dëkk di la wax dëgg nga romb ko fi kala jox tuuti moom dalaa jënd rek nga jar topp ko saa yu yitteem matee soxlaatu la du la geesu man mii nga xam ne xàmmee nañ ma doxuma ci dara lu wayadi li may dox dëgg la waruma xaalis dew ma ci ñu may xëpp ndax dafa am loo xam ne damay jàpp ne ku koy lekk rek lekkoolu lu lew loolu nag ko dañu réer moo koy xam mooy que ne nga dem ànd ak koo xamante ni bi nii yow lim lay jox leer na la ne ci sa ñaq la ci sa alal la sàcc alal li réew mi di ko pasar pasaree dañu fee indi war a indi am na ñaari leader yoo xam ne tey sax damay wax sax sama leader ndax moom laa gis mu incarné loolu euh, mooy que ne nit ki toujours dangaa war a am gëm-gëm xam ne réew ay jikko moo koy defar du ne da ngay toog fi nga toog nit dem sàcc alalu réew mi ñëw jox la ko yaag moom mi ko sàcc yéen a yem te loolu day nasaxal am réew te réew mi ku ne mettiwul rek yaakaar naa ne yeewootoo Sénégal gi nga xam ne xale yi bëggatuñ dara boo leen tegalee géej ñoom ñëpp ñu bëgg a lab ci biir ndax doyal ci suñu réew mi am naa ciy doom am naa ci ay rakk am naa ci ay xarit yu am seen doom ñëpp a ngi fital kenn amatul jàmm kenn bëggatul a yeewu yeewoo Sénégal loolu li ko fiy jële mooy ñu tànn ay nitu valeur ay nitu principe ñoo xam ne dañoo am ngëm-ngëm waaw kon xam naa ngir jeexal jamono ji boo doon message si nga xam moom ngay tàggoo di ko soññee suñu diggante ak ñu tàbb ci li nga xam moo di campagne bi nga fas yéene dugg ci gox yi ak goxaat yi ci biir dëkk bi wala ci région de Diourbel yëpp. waaw li may wax rek mooy ñi nga xam ne dañoo jël dëkk ci dëkk bi wala wuyoo santu dëkk bi tax ñu bëgg koo def armu di ko xeexe nit ñi nañ ko teg ci suuf seen bopp rek lañ fi nekkal dund rek lañ bëgg falu rek lañ bëgg li ñuy wax gëmuñu ci dara duñu dara ci dëkk bi di nit ñi. ku jug ñu naan la bëggoo sëñ tuubaa def ko armu de guerre nañ ko teg ci suuf président Thierno Alassane Sall xam na li mu war a def te am na ñoo xam ne du leen tontu am na façon nit ñoo xam ne suñu waxee duñ leen tontu dañuy defal nit ñi dañ leen a ragal fekk dañ leen a ignorer ku xam nit xam nitu valeur xam nitu qualité am na dëkk bi ñoo xam ne suñu waxee kenn du leen tontu ndax tekkeetuñu dara te mosuñoo tekki dara te tekki dara ñooñ Thierno Alassane Sall du leen tontu bëgg fu ñu jafanduwaat ba falu rek moo leen tax a jóg ci seen bopp rek lañ ne. Amadou Ba fan yi ku ne gis na ko mu ngi dugg Touba génn démb indi inauguré na li nga xam moo di statu Mbacke bi ak ndoxu Mbacke loolu ban ban lan nga am loo ci wax. damaa génnoon dem Louga damaa jékki sama rakk bi sama caatum yaay mi maa ngi koy nuyu ñëw ne ma non magi ci Maria Maria kii nag wax dëgg yàlla bala ñu ko doon kii dañ ko waroon a wutal bayra sangat ko mën kooku xaw ma ko. yàlla xam na ni xàmmewuma ko ba man bu ma ko waatee sa du ko gëm man kooku noonu xàmmeewu ko. kan Amadou Ba mais Mariama Amadou Ba nag xam nga ko nag. ko xàmmeewu ko yow defe nga ni yow candidat boo xam ne yow yow la fi président sortant bi teg ngay ñëw Touba kenn yëgu la ñu tëdd ba xaaju guddi ñu naan yaa ngi Touba stade ba nit ñiy daw man de su bokkoon ak man wala ma di ko conseillé yàlla xam na du ma dem élection damay démissionné. gisuma lenn lu ko war a jara te sax man damaa jàpp ne moom du seen candidat am nañ candidat bu ñu waxul nit ñi. waaw dañ ko doon teg diil di ko sëlam diil bi nag Thierno Alassane Sall mi xam naa ne da daa bokk ci ñi ko éclaté bàyyeeguñu fi mu toll nii ndax liñ bëggoon teg Thierno Alassane Sall ki nga xam ne moo fi nekkoon xaru daj fi lu ne ay jàmbur dee ci feeb ñi ñi ñi ñi am ci ay ay ay ay malaise ñi daj ci loo xamante ni bi ni ñu jël réew mi sëlam sëlamal rek toog naa ba doyal diil nañ protocole de Conakry yi yëpp nekk fi rek ñu daal di sëlam sëlam taxañal taxañal nit ñi waaye fu dëgg nekkul président Thierno Alassane Sall moo fi nekk nekkul te day dem ba jeex nag te du ragal dara incha allah. yaakaar nga ne élection yi eh, dina am ak eh, ak coow li ni mu bëree fi mu toll nii. man de damaa xam ne gàcce gu gàtt moom moo gën gàcce gu gudd. te xam naa président sortant bi ndeysaan mosuma am ni fan yi ni may yëg ci moom xam ne kii bëgg na Sénégal nag te mi ngi koy doog a bëgg bëgg gi nag bëgg njariñam nguur dafa neex wax dëgg yàlla miin na nguur ba bëggatu la ñàkk a doon buur moo tax fi mu toll nii mi ngi dem waaye xelam a ngi jafandu ci nguur gi waaye yàlla na nu yàlla tàqaleeg moom ci jàmm ba heure bii déwén ñu naan ay atam maak ay nguuram ka li ñu ci naqari lépp moom dootuñu ko wax ginnaaw tàggoo na mi ngi dem yàlla nañu tàggu ci jàmm bàyyi ñu ci jàmm Sénégal suñu doom yi dem dellu si ñi faatu ñu ñaanal leen seeni waajur dund ba di ko fàttaliku loolu la ñuy ñaan waaye du leneen. lan ngay jox dig daje fi ñu toll nii bu ñuy dajewaat mu nekk loo xam ne nii honorable député wala ministre de la femme wala. waaw macha allah ministre de la femme euh, honorable lu ñëw baax man toujours dama li ma la yàgg a wax yàgg koy wax man namuma honorable ndax yaakaar naa département bi fu ma jaar honorable du topp ci sama ginnaaw dama ko miin ba déggatuma ko ba ajal nañ ma niveau bi ba def ma ministre de la femme ndax man Mariama bi ma nekkee Touba di xeex ba tey mosumaa xam ministre de la femme amul benn ministre de la femme boo xam ne mës ngaa jàpp ci suñu combat ñooy xuusal suñu bopp jigéen fu mu nekk rek def fa lam fa war a def ministre la fay doon député la fay doon te ci foofu lañ wàññeek may jox rendez-vous ñëpp nag wax dëgg yàlla di leen wax ne man ci dëkk bi laa dëkk te xam nañ li may xeex ci dëkk bi gisuma benn jigéen ñu feebar maa ngi enregistré juróomi cas yoo xam ne ay jigéen ñoo xam ne ñii dañoo amee goitre ñii amee ay feebar ma war leen a opéré wéet ci lool nag ñu di ma topp guddi ak bëccëg te yaakaaruma ko ci kenn lu dul ñaan yàlla changement am ba hôpital bu baax bii macha allah nga xam ne Serigne Touba mérito te leneen ak leneen dina fi ñëw ndax dëkk bi moo ne tolloo yàlla def ko ku feebarati te ñëw Touba faj du la jaaxal ordonnance du la jaaxal euh, sénégalais yi nag loolu ñoom ñoo ko mën a ko ñoo ko mën a ñoo ko mën a ñoo ko mën a garanti mooy que ne seet boromi valeur ñu def ko président Thierno Alassane Sall nag ma di ko nuyu di dalal xelam ne ko fii la dëkk ci dëkk bi bu ko kenn xoqatal li mu wax moo ko wax du ci deltu ginnaaw te dafa am kim ko waxal dara dindiwu ko ka ko bëgg sëlëm nag teg ko fi ndax defale ko nit ñi nuñ duñ ko nangu bu ko sénégalais yi nangoo ñoom la neex. non parking bi est ce que na ñoo xam ne ñaari oto moo ci nekk ndax daana gis bu weex dawal nga ko sànq. oto yi bëri na maa ngi wax nit bem bi edge bi. seer na moom. Hmm, seeru 18 millions rek lay jaar. Mariama lan mooy secret Mariama Touré ñu jeexal. liggéey wata awunu anil biri wa taqwa liggéey ak jaamu yàlla ñun moom lañ xam maa ngi wax candidat yi képp euh, département bi ku bëgga a luye oto wala nga bëgg oto rek maa ngi parking incha allah macha allah maa ngi leen sant di leen gërëm di sant nag jigéen ñi ma àndal waa république des valeur sama groupe bi nga xam ne dañuy xëy di liggéey xëy di daw ba jant bi so ngir bëgg président Thierno Alassane Sall nga xam ne moom lañ choisir ci 2024 bi pour pour pour pour ànd ak moom soutenir ko yàlla may ko ndam di wax waa département bi xàmmee nañ ñu ci dëgg lañ ñu xam ci fula lañ ñu xam ci liggéey lañ ñu xam ci ngor lañ ñu xam nañ ñu voteel may man ndam man ci sama jëm bopp may ko borom république des valeurs bi nga xam ne dara ñoru ko lu dul ay jikko yu rafet may sant bu baax sama borom kër di sant sama càmmi ñi may soutenir di sant sama ñi ma àndal ñu di ma gunge su ma limee duma juum mais du ma matal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama mag yëpp nag lu ma nekk ña nga ca lu ma dugg ànd nañ ceeg man di ci def seen alal gis nga soo ba tey émission bi ñi ngi ci ànd ak man lu rafet man lañ ko yéene di sant sama jabari caam mi ñi nag bu baax ñoo may solal démb rek am na ci ku ma ci woo koo xam ne valise la ñaw ba mu àgg duma ko bañ a tudd muy maam xari ak maam jaara rakkam jooju ñiy def parfum yi ñiy def dàll yu rafet yi ñiy def euh, jasneer yeeg borode yi macha allah daal li ma bëgg a wax yaatu na maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax nag sama mag gi sëñ Moustapha Mbacke moom sëñ Modou Faati Xari di tàllal loxo mboolem nag njabootug sëñ Abdou Karim Touré gi di leen wax ne sëñ Moustapha moo ma jox ndigal ci président Thierno Alassane Sall maa ngi ñaan ngeen voteel ko ñu fal ko. muy candidat boo xam ne sëriñ see ko bëggal seen bopp ndax ay valeur ak i jikko yu rafet wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñuy topp di ànd ak ñun di ñu fas yéene ànd ak yéen ba élection yi jeex ak jàmm ak salaam comme ni ñu leen ko wax tey bi kii ñu seet woon gis ngeen ko dégg ngeen li mu wax di leen jox dig daje ba beneen yoon waaye képp koo xam ne ne bëgg nga ñu seet la tim da ngay ci numéro yooyu nga xam moom nga gis muy dox 77 05 43 77 630 05 43 wala 77 867 38 84 boo ci jokkoo ak ñun nag dinañ ñëw fas yéene séq ak yow li nga xam ne moom moo di yoonu dox jëm ci élection yi ba beneen yoon a ngeen jëf